maaleykum salaam dañuy sant yàlla julli cent bi sant suñu ñaari waajur ñu ngi sant mbooloom ku fi teew mu ngi sant presse bi yépp di wax rek nii ñoom dañu baax rek di ma cëral mais li fi li jaan def Arona def ko fi la def ko fi ñi jël kàddu yëpp def ko fi bëgguma fi wax leneen mais ñeenti moo rek laa leen di wax muy police centrale bu Guédiawaye ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ndax la loi c'est la ku ne xam na ni la dëgër police bu Guédiawaye bu doon seen sago dañ ko jëli tribunaalu Géejawaay juge bi gën a mag doon ko atte bëgg koo atte ndax Lac de nit ku mag la mais amul kenn koo xam ni mën nga wàcce yoon Lac de ñaari caabi ñoo ko téye première caabi bi mooy ñi mu yoreel deuxième caabi mooy juge bi kon ñun li ñuy ñaan mooy waa Géejawaay du ma nekk di détail ku ne xam na ni géej waaye kilifa yi ñu ngi dajaloo pour jàppale Lac de Guiers mais lii fi am ci som am nit ku jël vingt cinq millions teg ko ci loxol Bécaye avant ñuy gërëm Bécaye dañuy gërëm borom vingt cinq millions yi c'est parce que ñu di ko gërëm bu amuloon ngor bu toll ni jël ko jox ko Bécaye Bécaye am ngor bu toll ni woow papay la de Guiers wañ na xaay bi teg ko ci loxoom kon tey wax ji dana sore damay wax rek nii li nga xam ni moom la Lac de Guiers yoreel ñi mu yoreel li juge bi di def ba xam ñi Lac de yoreel juge bi dana def loolu liñ koy ñaan moom miy jàpp te di bàyyi mu dimbali ñu ci Lac de xool nan lay def ba loolu fi ne mu woo ñi Lac yoreel xool nu muy waxtaan ak ñoom ba Lac de Guiers génn liggéey fay ndax mbër yu mag yi nekk au niveau liggéey Guédiawaye nekk parcelle nekk tëngéej gi ama neex di wax nekk yaraax mbër yi am 100 millions kenn ku nekk boo jëloon 5 millions lebal ko Lac de bu génnee dana la fay te xam naa loolu mu ci xelu mbër yi kon li mu bëgg mooy na lépp rafet ñu ngi sant Masila bu baax a baax te di wax ne Bira man li ma jàpp mooy Bira Sène complexe la Bira maa ngi dégg sànq ku naan ñu ngi gërëm Bira ci salle bi Birane Sène moomul salle bi salle bi ñun sénégalais yi ñoo ko ñun waa làmb ñoo ko moom tey jii bu ko leeroon ni Diomaye day ñëw wala président Sonko wala ministre des sports 11 la fi Birane Sène di mais li mu doon noo ko def te ñu woon que ni la dëgër ni ñuy def ba yàlla dogal ñu téye ko dinañu def ay pexe ñaan autorité yi waa Guédiawaye jox yeneen mbër yi jox. li fi manqué ñu defal ko la guerre fay seeni borom jamono ñooy kon tëgg lu làmb li ñu daal xam naa ni Aziz Ndiaye Baye Ndiaye Bare Gueye Ndiaye promoteur yi nekk ci biir Guédiawaye dinañ jël li ñu am ñoom Modou jël li ñu am Ama Baldé ñoom jël li ñu am Boy Niang ñoom jël nun lu ñuy ñu am ñu dajale li ñu am dolli ko ci li nekkoon ñu fay bor bi la dëgër génn te mbër yi de faire attention nekkuñu ci détails yi ah. à tout moment jàpp nañu mbër dafa def lii dañ ko war a fayal loolu bu mu fi amati mbër yi nañu am ngor toll nii li ñu am nañ ci yam li ñu moomoon nañ ko bàyyi nañu waxante dëgg te yàlla tax la dëgër la gën a xam ni bu nee jëpp te àndandoo bu bon moo yées bu mauvais la yow ndax problème yi mu dugg yëpp benn sagaw nit député mais bu la dëggee kii nii ñun dinañu ko teg ci ndax géej waay kenn mosu leen a yàq jërëjëf jërëjëf. ni ñoo mën a seetaan nag waaye nag yàlla mi nga xam ne moo mën a tege nattu yàlla na ko yàlla teggil la dageer nattu bi ci barke Seydina Mohamed. macha allah Père Diaw gis nañ sànq moo ko ci biir waxam nekkuñu fi pour di taxawu mbër yi tey lii dal la dageer kenn ñaanalu ko tey dal na seen beneen rax muy Albarka Kairé mi ci biir ban message ngay lancé mbër yi ci côté boobu waaw non xam nga natt moom ak dogal pour doomu aadama la tey mën na ma dal mun na dal keneen ak keneen loolu xam nga Père Diaw dafay dafa dafa sunu dafay suñu la di ñu di ñu ñaax rek mais wax dëgg yàlla kenn bëggul di dugg si ay problème ngay dugg si naka su dul noonu lii nattu la ku xam la dëggeer ci ci njubam ci julliteem ci baaxam ak ci njubam wax yàlla kenn séntu ko ci lii waaw mais nattu ak dogal pour doomu aadama la waaw bu waree ñëwaat si moom suba tamit day ñëwaat waaw kenn bëggul di am ay problème ñu lay taxaw waaw ku sañoon da ngay nekk ci xam nga si yoon di nekk ci dëgg di nekk ci jubal mais yenn saa yi ak dund doomu aadama moo mooy demee noonu ba tax na xam nga nañ gën a góorgóorlu waaw daal. macha allah première fois bu ñu koy téye géejawaay xaaroon nga ne affaire bi dina egsi fii. non wax dëgg yàlla lu ma bett la nag xaaral ma woon ne xam nga dina yegsi fii mais xam nga comme yoon dafa sew moom yenn saa yi fi nga koy yaakaar ak fu muy fu muy yegg yenn saa yi day utee mais loolu yëpp ak cant la rek comme ni ko Massi la waxoon ndax kaso am na lu muy fànq ndax mënoon na nekk si biti mu am leneen lu ko jural loo xamante ni mooy tane tëdd kaso wax dëgg yàlla kon dañ koy ñaanal suñu boro mi xam ne moo am taxawu ak jàppale ak ku mu teggil natt nga natt bi teggee ko yàlla teggi ko natt bu gaaw a gaaw ci barke Seydina Muhammad. gisaan ko ci diggante boobu ak léegi. gis naa ko gis naa ko mercredi passé rek. waaw naka nga ko gisee. waaw mu ngi baax de mi ngi baax rek nee ko fii ay ay ay ay malaaka newuñu fi ay dëmm newuñu fi ay nit nga fi fekk te bi yàlla dogalee tamit da ngay génn fi bàyyi fa ay nit te am na boo toogee tuuti ay am na ay nit yu la fay fekkaat kon yëf yi doomu aadama la nekkul ay yëf yi mala yëfu kii natt boo xam ne dal na ci koom la ñu koy ñaan yàlla teggil ko rek. macha allah bëgg nañ ci yow. maa ngi lay nuyu présenté wu. maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp ku turam ak santam Mouhamed Prince Benjamin talibé Serigne Aboubacar Mbacké. Mouhamed tey ñii ñëw fii pour soutenir la de ci li nga xam natt bi nga xamee dal nga ko tey lan nga ci mën a wax ci loolu nga xam si ni am na dal na la dagee waa xam nga lu dar la dagee tey mun na dara ku nekk déjà ñun am na trente cinq millions bu pare ñun yóbbante na ko ci juge bi démboo euh, lu ci des euh, dix neuf millions moo moo fi des comme euh, dañuy woo autorité yëpp bu nekk Guédiawaye pour jàpp si parce que man sama bopp an sama boos mooy jàppale ko waxtaan ci la loi bi juge bi sama xarit la parce que premier mun na fay xaalis ba pare encore yoon topp ko ci loolu voilà mais lu ñuy ñaanu juge bi mooy bu fay xaalis bi yoon ba ko topp. ci dara nekk bañ topp ci dara parce que ku nekk mun na def erreur ci àdduna. loolu moo ci nekk. est-ce que nekkul lii waruñu ko woon a waxtaanee ci néeg mu nekk fóotum biir néeg ba pare ñu waxtaanee ko fóotum biir néeg tey jii bu ñu demee ba affaire bi béy booy mbuus kenn ku ci nekk di indi sa alal di def. waaw soo kilifa bu nekk Géejawaay jàpp woon na euro affaire bi nekkoon commissariat comme du eggee ci euh, du eggee ci robos mais euro boobu ku nekk dafa wax sama yoon nekk ci parce que su ñoom jàpp woon na affaire bi du eggee ni mais am nga ñoo leen woo ñoom ñu ne ñoom seen yoon nekk parce que affaire bi àgg na fu mu àgg. ah xam nga si yow gis Sénégal takk nit yi kenn du jàppale mais ci déj bi di nga gis nit bu bëri fees del di dañu laa yërëm voilà loolu moo ci am mais alhamdulilah lu dara mbër mun na dara ku nekk mais nattu la loo xamante euh, kenn mënu ko dara voilà loolu moo ci am. di la ñaanal bu baax a baax sunu borom defal la jàmm dernier cadre. jërëjëf kilifa gi damay ñaan yàlla euh, ñu dem ci juge bi pour moom mun na libre Lac 2 ci lu mu gaaw a. Euh, ñu ngi nuyu ci nekk sa di nuyu presse bi fi nekk parce que tey message bi ñuy lancé à grâce de ñoom ñoo tax keneen ku ci mënta jot di nga ko jot kon ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax beneen bi ci des aussi di gërëm suma papa père Bécaye Mbaye dama koy profité teel koo wax atu bi mu def xëy na mun a jàpp boppam la ko def waaye ñun ñëpp la ko defal di ñaanal la dëgër nag yàlla suñu borom génnee ko ci situation yi mu nekk dund nag moom lu ne xaj na ci waaye xëy na li moo gën ci moom amuñu lenn nag lu dul toog waxtaan suñu biir mooy ñi nga xamante ne ñooy mbëri géejawaay yi bu ñu paree ñu dinañ toog waxtaan kenn ku ci nekk sa fukki dërëm ak sa cent franc nañ ko jéem dajale beneen bu ci des mooy ñun ñi nga xamante ni kenn ku ci nekk am nga say nit yoo xamante ni yaakaar nga ci ñoom boo leen mënee woo nga woo leen nga waxtaan ak ñoom di gërëm tam suñu benn grand bu tudd Sadio moom pare na pour yëkkati un million pour teg ko ci loxo papaam maa ko ciy sant bu baax a baax di ko gërëm beneen bi ci des di waxaat suñu mag géejawaay yi ku ci mel ne Aziz ñu ngi doon waxtaan ak Baye ak Kor Ndiak ak Masata dinañ fa dem na gën a waxtaan ak ñoom xeebuñu seen dërëm xeebuñu seen dara Margaret nag négligé wuñu yëf yi ñu ngi waxtaan xëy na situation yi yi mu tombeel moo tax yu bëri pour nga profité ko day métti ñun waaye daal ñu ngi tàllal suñu loxo ci ñëpp mu tàmbali ci justice bi jàpp ci askan bi ak mboolem doomu aadama boo xamante ni mën nga koo jàppale ak ci bépp fànn xeebuñu ci dara ñu ngi leen di remercier nag ndax ñu fi war a wax bari nañu merci. jërëjëf.